barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan. maa ngi dénk sama bopp di dénk ñëpp ne nañ yare ni alxuraan di yare weer wi nekk nii nga xam ne. doomu aadama ñaar la am jëmmam ak xeet wi mbokk mooy xeetu ndoomu aadama weeru kóor wi dañ cee wàññi ay ay mètre lekk ak naan moo la fi baax feebar du rey su la bëggee rey day tëj sa gémmiñ lekkatoo naanatoo mu dafa ñëpp lekkut léegi nga dégg mu ne dee na kon xiif ak mar ñooy rey mais feebar du rey fekk malaata nga lekk rek yaakaar ak ngi am waaye keroog bu ñu ko bëggee rey dañu ubbi gémminam gi weeru koor bu ñëwee bu nee ba fajar xar malaaka mi soufflé mboolem jullit bu ne ci terrain teg sa kudd këpp say kaas lekk ak naan moo fi bàyyi suñ jëmm yi kullu wasrabu pour ngeen mën fay nekk takkante sëy moo fi bàyyi suñ xeet wi fan kexu maataabalakum moo tax ñu man fi nekk kon lekk ak naan moo fi bay jëmm ji takkante moo fi bay xeet wi weeru koor nag dañ ci wàññi ay mètre dama doon lekk ci bëccëg ji di naan ñu la heure tel bul jege waaj bi amoon nga soxna ñu ne heure tel ba heure bul ko jege kon ndeke weeru koor ñaar yi tax doomu aadama yi di yokku sa jëmm ji di yokk weeru koor dañ ciy wàññi ay mètre lu tax nag xikma bi bokk na ci mooy alxuraan bu mën a wàcc ci yow gis nga nit su jëmmam setee bu muccee ci ay bi zaatu mucc ci ay bi naaw léegi alquran ñëw wàcc ci xol soo demee ba nga xam ne jëmmi boppam ji lim làmboo ci rëy ak jikkuy suufe yi na ci xiif na ci yooya ñun ñoo nii ñun ñoo naa ñun ñoo nii mucc na ci yooyu rek mu nekk shahru ramadaan kon loola taxaw seetlu la bu kowe ñu am benn jàngat mbokk yi ci weeru koor julli lu mu baax baax baax baax baax keroog boo jullee ba ci kanam sobe génn ci seew yàqu na keroog booy julli ba ci kanam ngay xaran ci jàkka ji waxuma julli gi mais njàpp ma sax day yàquwaale bu dee nelaw dafa diis weeru koor nag dafa nuru ak jaamu yàlla ak malaaka yi amul jublu penku weeru koor boo jubloo géej gi yaa ngi woor boo jubloo ndejoor yaa ngi woor boo dëppoo yaa ngi woor booy xaran yaa ngi woor weeru koor amul place amul jubluwaay noo mel yaa ngi woor mooy benn dars jaamu yàlla ak malaaka yaa ngi woor 24 sur 24 weeru koor rek ci jaamu yàlla yi moo ci amut dogante julli loo lu jàkka ji rafet rafet keroog boo jubloo xenu sowu kàbbar ndey jor fuqaay ñew wax ak yow way weeru ko amul penku amul amul xat muy ben dars kum neexon na or fanaan ca di tour ndox ba takusan jot sobe lu lu lu ku biram don doon tekkeeku mu ne ci wanak yendu fa ngon ngoon kooram kon koor sobe du ko yak kon sobe mënu ci dara amul place buñ ko jaglel mooy jaamu yàlla ak malaaka yi booy wax yaa ngi war julli ba waxee yàqu na man ngaa man nga ne ci oto bi di waxtaan ak say xarit yàq ci koor ngay wax di gestu di def loo neex te koor gi du yàqu koor fa ko yàlla denc dafa sori moo tax mu ne asawmu lii fa mu ko denc neexu tàgg ba di ko yàq julli dañu ko bàyyee am na loolu booy def toute heure bu ndaw rek mu la baaxatu kon mbokk yi koor a dafa nuroog lool jaamu yàlla ak malaaka yi nag yarab yàlla koor xam nga dafa métti doomu aadama xiif ak mar noonam la keroog bi yàlla bëggee indi koor nag bëgg a joxe ndigal li déglul ni mu ko waxee booy yar toujours dell roy alquran yaa ayyuha alladina amanu mu tàppa tàppal ñu nit ñi déedéet yaa bani aadama jub na déedéet yaa ayyuha alladina aslamu na mais déedéet yaa ayyuha alladina amanu trop fort et eh, yéen ñi ma gëm xol sedd nit soo ko bëggee digal dara da fexe ba def ci moom ndax lu mën a dékkundoo loola am noo ko wooyee am noo ko toogloo am noo ko melloo mu dugal a mën a déglu waaye xiif bu lekk bul naan ñëw rek buude la waaye yàlla ne yaa ayyuhaa danaa aamanu gaa yi ah lii de neex na ñëpp raxas seeni nopp mu ne kutiba alaykumu siyaam déglu waxin la de am na ko dogal ci yéen koor kan la dox waxu man man yàlla mënoo ne katabtu alaykumu siyaam wala kataba rabbukum alaykum siyaam mu ne kutiba am na ko dogal ci yéen koor nëbbu borom xam-xam yi ñu ne su méttee yàlla làqatu booy dafa neex bu daal di présenté woo kataba rabbukum ala nafsi rahma ba mu nekk yërmande dafa indi rabbu koor comme doo lekk doo naan mu ne ba daf lay jàngal dëgg-dëgg mbokk yi yàlla rek mooy moom mooy moo fees dell li tax ma bëgg a ñëw ak segu ma ci mooy nga déglu mu ne ay ayyaaman daal du ngeen lekk du ngeen naan waaye ay quelques jours la xam nga loolu yow mën a nit xel mën a daal ay yaamam maadudaati day naa ko nawul problème bisimilah na ñëw mu dem ba ci kanam na shahru ramadan alladi unzila fi def ko weeraw lëmm mais njëkkee wut weer bi pourtant yàlla xamoon na ne weer la mais dafa njëkkee ne ay yaamam maadudaat ay quelques jours lay doon ñu ne kon du yàggut kenn ku ne toogaat mu dem ba ci kanam na shahru ramadan alladi unzila waaw ah, moo mën a jàngale subhanahu wa